bismillah waaw man man damay ñëwaat si. inscrire nga. waaye ban kay xam nga dama ko fa dama ko fa yu njëkk yuuxu kenn faale wu ma. waaw la nag yaa ko parce que hmm. je disais même que j'ai parent d'élève man li may gis nii je ne comprends pas. grand yaa ngi wax mais pour man li ngay wax noonu lu gën a yomb loolu affaire bi bon sens la. Hmm. am na yoo xam ne c'est même pas du droit c'est un bon sens. Hmm. jarul ngay jàng ngay sori. 1 plus 1 égale 2 c'est facile as aspect avant may ñëwaat si éducation bi c'est que on est en train de ñu ngi flirter maintenant ak période post-Covid xam nga aujourd'hui l'actualité c'est l'éducation je vous rappelle que tey am na benn information ñu am yéen quoi ay 126 personnes licenciées dans des hôtels aujourd'hui non je veux dire par là que on est à Jakaarlo aujourd'hui ñu wax si rentrée bi dans deux semaines di nga wax si leen toujours si période post-Covid pour dire autre chose autant le Sénégal a été très brave nekk deuxième si gestion sanitairement parlant mm -hmm. je pense qu'il est c'est le moment c'est le moment de se mettre devant et de se préparer à l'après Covid parce que mhm. commencé na xeeñ et mhm. conséquence yaa ngi nii ah. pour revenir au sujet pour revenir au sujet et je suis content d'avoir des enseignants devant parce que man bi affaire bi amee dama jël suma téléphone ma dem à l'information parce que j'ai trouvé ça bizarre mais comme nous tous des parents ma ne xaaral ma informé wo xam comme comment ça se passe mais source bi ma am c'est une source de bon foi une voix autorisée qui m'a réconforté dans position pour ma dire écoute-moi très bien mooy jour bi may wax fii ku yóbbu sa doom école bu fin du mois jotee le cinq boo fayul sa doom dañ koy dàq boo fayul à l'école dañuy dàq sa doom Covid ou pas mm-hmm. donc bu ko jàngalul waroo ko fay man argumentaire boobu laa jëloon mu basique mu facile c'est pas compliqué su ma joxee su ma lu nga dàq ma mais si c'est le contraire mais du ma la fay man foofu laa déparé wul donc je suis allé à l'information de revenir sur ça parce que da dem ba Pape ji bu koy brosser léegi laisser aller bi am si autorisation yi ak installation établissement privé yi le gars il me il me confirme mu ma dafa benn cahier de charge bu établissement privé yi di remplir cahier de charge bi dañ siy prévoir en période de crise pendant une période de trois mois l'école doit surtout prendre en charge le temps de de dépasser la période noire et là je suis avec des enseignants je pense que c'est pas une information de euh, de de fou quoi sous ce rapport simplement sous ce rapport angle boobu kese sans subvention ça quoi que tu puisses invoquer on ne devait pas payer si l'information est ah du béton mhm. et je pense que c'est du béton parce que waxoon naa ko fi gisuma ko ko weddi et mhm. fi ma ko jëlee dafa wóor sauf ma bàyyi benn marche mhm. le temps ñu may démentir cahier de charge bu Sénégal bu installer une école privée dañu lay da koy signer que tu dois tout prendre en charge pendant une période de trois mois s'il y a une crise il y a eu exactement une crise de trois mois de suspension de cours de trois mois mhm. donc d'office encore benn argument on ne devait pas payer mhm. boo jogee si aspect boobu tu viens maintenant sur euh, comportement gouvernement bi mhm. on ne peut pas dans un pays mu am un problème commun nga segmenté ko quand au nord c'est couleur bleue quand au sud c'est jaune je veux dire par la dafa am benn benn seetaan bu ci am l'éducation nationale e gérée par un boss c'est un seul ministre qui gère qui coiffe toute l'éducation du Sénégal il n'y en a pas deux fii amul parti pris amul dara c'est mm-hmm. une administration commandée par une personne qui est la tutelle d'un président de la République mm. donc il fait sa signature c'est c'est applicable partout pourquoi moom tergiversation yooyu c'est des questions qu'on doit se bref lii nii lii nii nii éducation bii nii nii dafa war a servir exemple bi ñu càmbaraat lu bari. xam nga Covid. xaw ma laa Covid de Covid moi j'ai un problème aucun respect pour lui xaw ma la ma ko wax le ou la. jarul xam waaw ak quelque chose de banal bon. jarul ça veut dire que Covid autant il est atroce il est insaisissable autant il met devant des faits. il t'oriente quoi da war a wax na yow fi nga war a teg moo tax éducation bi dañ ko yàgg jàmbat. Euh, installation anarchique école privée. des enseignants qui ne sont jamais d'accord avec l'État. Je ne comprends pas pourquoi. est nous avons des syndicalistes enseignants Est-ce que nous avons des politiciens enseignants est nous avons des élèves politiciens des... Ça va dans tous les sens. Autant il y a une marge très équilibrée, classique, orthodoxe, orthodoxe mais autant il y a de la périphérie qui, mais qui gangrène tout et finalement qui emporte même le bon. C'est un débat de fond. Merci mais je répète pour conclure d'ailleurs. Mm-hmm. période pré post Covid. pré man laa koy woowee pré post Covid. parce que Covid bi jeexagul pré post Covid. je te jure ça commencé. il faut que les gens s'y mettent dès à présent parce que on va vers des situations extrêmement compliquées et su boobaa nag c'est vrai que bakkan moom moo gën a fort yàlla nañu yàlla dimbali. ñu yemale foofu ñàkk bakkan yi. Mm-hmm. waaye tamit <laughs> ba mbër la de. Mm. mais Papis da war a yox buuba parole ah yow dafa mel ni da nga ko contre quoi. dama dafa war a wax ah. buuba est-ce que inscrire na sax buuba. en je pense que il faut ñu wax suñu. Mor Mbaxaan ni hmm. <laughs> xaw a gàttal parce que. Mbaye bu ñu gàttalee bu ñu gàttalee tu seras la première victime mënoo gàttal. <laughs> yaa dàq xabaabal da ngay xotti di dem. parce que parce yi dañu guddal la. dañu guddal affaire bi gras yi. mais mais maam Abdoulaye c'était intéressant de. Ah, non mais dafa may guddal ah, ba pare sama école <laughs> ba pare sama bi ma jàngee. léegi ba pare waaw waaw waaw. mais moom moom ba bi muy toog ba bi muy toog wuyu ma. man école boobu laa jàngee. d'accord affaire sama grand koñ waaye boo xoolal tey nag mooy fii daf fi am grand boo xamante ne parce que laa woon commencé nuyoo parce que sama grand Babacar Boubacar kii sax am bas bas bi autant pour moi am nañ jaar jaar te jaar jaar yenn jaar jaar yi ay xeer la woon kii moom parce que parce que man xam nga lu moom kii moom j'ai l'impression que Charles la. parce que il a eu plusieurs vies <laughs> ay ay cinquante vies <laughs> <laughs> il a commencé très tôt. il a il a commencé quoi. jaar ak moom. ñu moom. kii bu a commencé très moom. c'est du français wax yow yow Malal. Ah. gàjjagal xam nga kii son son papa était prof notre prof Daouda Fall mooy papam maa ngi def affaire laay jow Daouda Fall prof d'anglais vent mooy papam mais di di un fils d'enseignant léegi tu vas nous dire que nous sommes des laay jow kooku mooy manque de respect bàyyi xam nga tey la rek bu ma reprendre la parole bon di ci di ci profiter rek di di jaale aussi euh, soxna Aïda Dem nga xam ne moo soxna si Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum bàyyi ko fii te moom ay doomam sama ay ma sëñ Malick si sama grand la moom yar. Mhm. Euh, Abdou si aussi sama sama sama sëriñ la sama xarit la sama gorom Pape Touré aussi donc ñu ciy profité rek di ko mhm. di ko di ko jaale xam naa ni euh, Pape Djibril moom. Euh, sëñ bi vraiment bokk na si ñi nga xam ne damay gis tout le temps booy wax ngay jël ay ay référence ay référence ak ay kàddu yu mu doon mm-hmm. wax donc ñu koy jaale di ko jaale mm-hmm. waa waa Sénégal yëpp ku baax la woon mm-hmm. di ko jaale xalif général des des Tidiane Serigne Babacar Sy ñu koy nuyu ni ko wax que ni waa jàkkaarloo dañu ko bëgg ñëw seet si temps yëpp vraiment bu ñu bu ñu waxee date rek ñu ñu ñu départ ñëw seeti ko incha allah incha allah yaa koy faussé ah non non du même parce que damay xaar ndigal munoo jëkk kilifa doo jëkk jëkk rek débarqué comme ça bis ah, ndànk rek ah, waaw yaay faussé rek <laughs> mais wax ko xaw a kii sax mooy dëj ci diggante bi mu jóge ci waaw voilà exactement ñëw fii nii vraiment lu baax la loolu lu rafet euh, arnaque la affaire <laughs> bi mais arnaque la c'est-à-dire que non arnaque la hmm. arnaque la c'est-à-dire mm. xam nga mm. nit ñi nga xam ne dañu am muy nga am école ak nga am restaurant nga am boîte de nuit nga am télé nga am yëpp gars yi dañuy wut xaalis loolooy problème bi. c'est pas mm. parce que ci éducation nga nekk rek dañ la war a ëmbal mbir mi arnaque la. c'est de l'arnaque quoi. yaa ngi may jox man dama ñëw di commander lekk joxoo ma lekk bëgg ma fay ma xiif nga ne ma danga may fay par force. mais loolu mënta ne. te pour man foofu lañ ko war a Papis di mu wax dëgg la nañ ko def mu terre xam nga service la. Mhm. service la. mais man xam nga xam nga damay wax que ni tu sais ñun euh, pour ñu booloo dëggantaan xam nga par exemple 23 juin amoon na Sénégal yëpp jóg ne lii dañ koy posé pour man. li may li may xiif des fois si suñu dëkk yi. Mhm. benn esprit de solidarité boobu mooy pour man def réew nit ñi seen bopp. yoo mhm. xam ne waratuñ ko nangu. Mhm. su ma gisee kii fay parce que am nga mais que le fayul ça me pose un problème pour man esprit de solidarité boobu dañ ko war a am mu nekk un truc national. di nga di nga pour man réew. dafa am benn état d' boo xam ne bu fa amee am na yu bëri yoo xam ne nit ñi ñëwuñ ko. te loolu moom mooy régler problème yu bëri su fekkoon ni ñëpp jóg nañ ki ko am ak ki ko amul yëpp ne écoute ça c' est injuste. su boobaa force yooyu bu ñu ko boolee nit yi dinañ dellu ginnaaw parce que ci Covid bi amul ku ci amul ay problème ñun ñii fii feneen ak feneen. bëri na ay ñoo xam ne ay ay enseignants yoo xam ne bi Covid bi amee dañ dem di xari matt ci biir kër yi di jàngal xale yi. bu ñu ko enquête seen porte la def. fu ñu ko def ñaata enseignants ñooy jàngal ba pare dem war a ñibbi seen kër yi xale yi ñuy jàngal dem si le soir seen kër di fa gagner plus d'argent que ça. business benn tooxidu na ñëw na daal ci àddina bi ñëpp di ko yëg mais ñëpp ñoo ko war a yëg. mais surtout yow mi nga xam ne ay xale ngay jàngal c'est-à-dire booy jàngal xale te amoo xol xolu euh, xolu yërmande boobu que bés bu amee problème nga mun ko taxaw y a des yoo xam ne pour man loolu mooy wane lii da nga ko war a def. boo demee ba ubbi école ah te munoo bës sa xol pour que dimbale ay xale yoo xam ne da leen war a jàppale parce que seen parent yi dañu sonn mais ça pose problème yow waroo jàngale. parce que jàngale yërmande ba pare. moo tax du ay cahier de charge yi il faut ñu xoolaat ko kan mooy jàngale fan la jóge lan moo tax mu jàngale est-ce que c'est pour tabax ay immeuble est-ce que c'est pour xam nga. kii jàngale fan la doomam di jàngee loolu yëpp dañu ko war a xam. école yi dañuy fay impôt cest à am na ay mécanisme man su ma doon état dama naan ok normalement kuy imposer nit ñi nii ah di carré ni da ngay da nga xam nga établissement privé la war a fay impôt. mais pourquoi état bi du imaginer sur un an wala sur deux ans def allégé ba nga xam ne nit ñi dañ mën a dem jàngi c'est pas un problème mu ndaw la ñu bëgg ko def benn un truc national mmh. parce que dafa am benn manque de solidarité mmh. entre nit ñi mais aussi d'imagination mmh. c'est un petit problème qu'on peut régler nit ñi dañu sonn nit bi nga xam ne dafa amoon tàng naam bi ko jaay wala restaurant bu ndaw bi di fa def fast food mu tëj pendant quatre mois nga bëgg ko fay mais amu ko mais par contre ñi nga xam ne ñoo am pour fay à défaut de fayal kenn mais nañu solidariser wu. Mhm. ba mbir mi nekk benn bloc. nga xam ne dans un pays comme le Sénégal lii du fi am wala lii du fi am. parce que aussi bu ñu jëlee affaire bi rek ñu ñu wékk ko état taxaw di leen xool ni. Mhm. état dafay des fois day seetaan sur suñu état yi. Mhm. il faut que ñu am ñu nekk ci ci niveau de de de de de kii boobu quoi. de solidarité boobu nga xam ne. s'il y a un problème da ngay sentir un national ne ah nit ñi aussi am na yenn yoo xam ne du nangu lii dëkk yëpp. lii régler problème yu bëri da nga gis benn problème bu ndaw ah boo gisee ay printemps arabe ak ay affaire problème bu ndaw moo koy ëpp ñëpp jóg ñëpp jóg mu nekk benn léegi mu nekk le problème te loolu soo régler problème boobu jour boobu le problème il est réglé définitivement parce que c'est des businessmen te kuy def business te mënoo bu trois mois ou quatre mois en cas de pépin waroo def business surtout booy jàngale parce que am na benn marge de sécurité boo xam ne da war a am mm. léegi ban service nga proposé yow déjà moment bi xale yi di fay yow prévoir woon bës bu tooxi doon amee yan alternative ngay jël pour xale yi comme continuer jàng waxi ñuy wax waxi internet ban internet tam mu am fi internet ça coûte cher. ñu bëri amuñu accès. waaye mais non nga xam nga nit yi bu ñu waxee bu ñu ay mbir en ay ay ay cours en ligne affaire yi nan waxante dëgg. saa yi duñu toog si suñu plateau yi. Mhm. suñu mbubb yi macha allah yaa ngi yor gaare suñu oto yi teg climatiseur yi tàkk ñu foog ni le Sénégal est comme ça. nous <laughs> wax fa non dëgg la. saa yoo génnee sa oto taal ci mbedd mi romb ay nit. déedéet boo damay wax sénégalais ku ciy dox ku ci taal clim di ci tëdd wala nga nekk bureau di ci tëdd boo duggee ci mbedd mi xoolal nit ñi di nga gis que ni lii mooy Sénégal. te ñun oh, non minorité lañ donc ñun amuñu sax droit à la parole dañu ñi ngi kaasal ay nit yoo xam ne en réalité c'est ça le vrai Sénégal. te ñooñu ñoo fi gën a bëri. te ñooñu ñuy teg loolu yëpp bu doon xamuma lu ma mën a comprendre nga ma danga may fay parce que am nga ko mais xam nga ne amuma ko xam nga ni li la wokk moo ma xuri mais quand danga may fay et les gens sont impuissants ñi a fay moi je trouve que par exemple malal ku ku toll ni malal taala mm. ak influence bi nga am je suis désolé mm. si sa école boo xëyoon ne man am naa peut-être yàlla may na mu tuuti ma fay ko mais par principe du ma ko fay je suis solidaire gis nga actes yu mel noonu moom mooy révolution révolutionner mbir mi ba nit ñi gis nga ci ci domaine u man naan mm. dagguma la waaye loolu nga wax mm-hmm. noonu loolu laa bëggoon critiquer malal mi nga xam ne xam naa ko nga mm-hmm. xam ne loolu mu def Mm. c'est de la démission. non dafa am voilà parce que dafa am ay mm. dafa am ci ay mm. secteurs. dafa am ay secteurs yoo xam ne. gis nga bu ñu ko bëggee régler ah. billaay di nga ko wékk rek ci état c'est-à-dire dañuy toog fii di def jàkkaarloo. di wax ci mbirum transport. c'est-à-dire que bés bu nit ñi jógoon mu am benn esprit boo xam ne dañuy technique nit ñi ne la man mi lay fay sama xaalis je demande un minimum. pour ma mën a ah. dugg sa oto. nit ñi jóg ne dootuma dugg taxi. boo xam ne day def amul climatiseur. amul wala muy mënu kii boo xam ne nit ki man bu ma génnoon ci xaalis yor sama 2000 3000 francs di jël taxi. je me je préfère rester trois benn trois minutes wala cinq minutes. Ah, xaar taxi bu baax bu ñëpp demoon ci état d'esprit boobu ki yor taxi bu bon au lieu d'avoir dix clients il va en avoir un. Mm-hmm. y a des problèmes que nous-mêmes ñoo war a mm-hmm. mais amuñu doole mais xamuñu fi ñuy taxaw donc. suñu ñun ñoo war a imaginer ay actes yu ñuy posé yoo xam ne à la limite c' est même plus fort que l' état c' est plus fort que que que les écoles. bés boo koy def di nga ci wéet de. waaw non non du ñu ci wéet non dama la. non non non désolé. il a raison. oui je suis désolé mais c' est ça aussi la triste réalité. voilà xam nga li ma lay wax. tant que ñu ngi dégg ma ne la tant que ñu ngi wax. rien n'est impossible tant que ñi ngi wax boo ci ah. defee doo ko gëj a dégg dama ne la suñu wax nii lu muy tuuti tuuti tuuti il faut le susciter il faut le susciter mm. il que nit gis nga dëkk yi dox yëpp mm. ah quartier yi dox yëpp ah. dafay am ay quartier yoo dëkk yi développé yëpp quartier yi dañuy am benn doole boo xam ne am na loo xam ne enfin tu me rejoins dama dama lay jox benn anecdote dama dama am nañ chance tukki New York mu am benn boutique buy jaay yére mm. boutique mi ngi jaay yére te li boo ko benn jour kii am boutique bi di changer yére yi fàtte fa mannequin yi ñu summeeku noonu mannequin bu summeeku et pourtant on dit que tubaab yi ñoo gën a yàqu ñoo gën a kii association yi nekk ci koñ ñoo ñëw ne mannequin yi il faut ñu solal leen yére parce que suñu doom yi fii romb di leen gis ñuy def kii dafay leen de donc pour te te loolu boo ko deful ah ci 24 heures da ngay am problème donc nit ñi power to the people nit ñi le pouvoir dëggantaan nit ñi te nit ñi c'est les actes mooy tax ñu am doole te bu boobaa état dafay mën a topp rek parce que nit ñi ñooy ëpp doole te nit tant nit ñi jëluñu pouvoir boobu entre les mains dañuy am tout le temps des problèmes comme ça. Tunkara maa ngi ñëw coow mais comme nekkuñu fii foog école.